dale nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu ndoo wolof njaay nee na xal nag man nga ko daal di xeeb mu lakk sa dàgg yéenekaay gi di réew mi ko quotidien moom mu xëy di wax ne jàngoroy coronavirus ji ak cas yi nga xamante ni moom mooy law ci réew mi en tout cas buñ si teelu te jóg maanaam li ram sañak bala jëm te bu fa amee kër du baax ndax nag ñi nga xamante ni ñooy France ak Italie ak États-Unis ak Iran ñii nag cas yi moo leen rayoona te nag fagaru gën faju yéenekaay groupe promo consulting bi moom nag mu xëy di wax ne en tout cas daal li am ba des daal mën nañoo wax ne Sénégal ñi fi amee gun jàngoroy coronavirus ji dese naa bëri waaye nag loolee warul tax ñu nekk fi di xalaat ne njombe ak girawali ak musiba mabakumba mënul am ci réew mi yéen kaay gi di réew mi ko déjà mu xëy di wax ne en tout cas daal bay booy ñuy xaara njombe nag boo mooy tuulee daal ci ab confinement partiel maanaam ñenn ñi daal ñu wax leen bu leen génn seen kër rawatina ñi nga xamante ni fa ji test massif yoo xamante ni maanaam ciblé lay doona ñu xool gox yi nga xamante ni bëri na jàngoroy coronavirus ñoom nag ñu daal leen di defal ay test yéen kaay gii di libération moom mu xëy di ñu xamal lan ñu en des mooy cas communautaire yi ji daat nay bëri loola ndax naka ñeenti fan rek gis nañ lu toll ci fukk ci ay cas communautaire lépp lépp bu ñu ko xaymaa mbogo mbogo ko maanaam toll na ci ñaar fukk ci ay cas communautaire maanaam ñaar fukk ñooñee yëngatu ci lu jëm ci wàllum faj gi waa kër docteur ñoom nag communautaire yi jamono ji daf leen a daal di jaaxal ba maara day taali laas yéene kaay bàyyi mbir moomee daal di wax nag ne Macky Sall jamono ji nag maanaam moom Macky Sall mooy avocat Afrique rawatina réew yi nga xamante ni jàngoroy coronavirus ji dafa nag def ay njombe ndax lu jëm nag ñu daal di bàyyi li nga xamante ni maanaam annulation dette bi ngir nag réew yi nga xamante ni ñoo am ay jafe-jafe Macky Sall nag jël xeex ba nekk ab avocat di layal ngir nag ñu daal combat la yéen kaay gii du l'observateur mu ñu xamal naa ñu njiitu réew mi di Macky Sall neexul ba neexul waaye nag combat yépp daal ma nga fa ndax nag ji li mu bëgg maanaam mooy modifier code du travail ngir nag protéger ñi nga xam ne ñooy employé yi ngir ñu bañ a am ay jafe-jafe jamono ji nga xamante ni covid 19 bi ma ngi lëmbaa jël réew mi yéen kaay gii di Les mu ñu xamal naa ñu xam nga ne am na benn commerçant bu ngeen doon dégg ca diwaanu Louga ñuy wax ne kookee dafa ama coronavirus ba jot ko wàll ñett ci ay jabarama kooku nag nee nañu wàll na ko nag yaayam loole nag mooy musiba ma ba kumba te lu toll si juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ay nit jamono ji ñu mu jege yaan tolloon quarantaine nañ leen journal bi di Vox Populi moom nag mu xëy di wax ne est-ce que nag jamono ji du ñu imposé askan wi ngir nag ñu daal di takk li nga xamante ni mooy ay masque su dee nag diwaanu Tamba foofee nag la ñu leen wax daal jigéen ñi képp kuy dem ca marché ba nanga nga takk ab masque yéen kaay gi di réew mi quotidien moom mu xëy di ñu xamal la nag lu toll si ñeent fukk ak ñaari moodu moodu yi nga xamante ni ñoo jógee woon Amérique te ñu làqoon leen ci Lac Rose ñoom nag ginnaaw bi ñu leen defee ay test lu toll si juróom-ñeent ci ay nit daal nañuy amee jàngoroy coronavirus ji ña nga xamante ni ñoo sa des nak ñoom lu toll ci fukki fan ak juróom def nañ ko fa moo taxoon nag ñu bëgg a ñibbi bi ñu bëggee ñibbi ñu ne leen du ngeen génn daal di fay jàll li nga xamante ni mooy ay gendarme waaye nag bi ñu defee ay négociation daal nañ leen di bàyyi ñu ñibbi waaye nag la ñu leen wax daal mooy ay mesures sanitaires yoo xamante ni daal nañ leen koy jox ngir nag ñu daal di wàccoo ak mooma yéen kay ko di mu xëy di ñu xamal lañu nag diwaanu Tamba lu toll si ñeenti téeméer ci ay nit yoo xam ne maanaam dañu leen a confiné yéen i kaay gii de la turbine moom nag mu daal di xëy wax ci ndimbal li nga xamante ne am na ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi dajale ci réew mi secteur privé ci Sénégal Macky Sall war na leen a jox cër ndax bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall gën a doole la maanaam muy Orange di Total di Eiffage ñooñu ñëpp lu toll ci sept cent mille kese rek dong la ñu joxe te bu dee secteur privé bu Sénégal ki nga xam ne mooy Tahirou Sarr benn milliard ak Babacar Ngom loo ci topp rek ñetti milliards ak lu tekk te jamono jooju ñi nga xam ne ñooy waa jooni jooni maanaam dañu leen a assassiné te régime bi moo ko daal di def ñi nga xam ne nag ñooy wari jamono ji ñoo ngi ci guddi gu bët séddagul la turbine moom nag jàpp ne Macky Sall daal ak régime am war nañoo gën a jox cër ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi yéen a kaay gii di libération ñenn ñoo xamante ni ñoo nga dëkk Thiès ñoom nag nee nañu neexul ba neexul waaye ndimbal li nga xamante ni Macky Sall wax na ko maanaam séddaleeg dund gi ñoom gëmuñu ko ñoom moom seen gëm te ñoom nee nañu daal gëmuñu ne mbir mi dina am leeraange journal Sall jamono ji ma ngi tëkk taxawal ki nga xam ne mooy Mansour Faye ngir nag mbir mi gaaw mu daal di koy gaaw séddale ngeen ni kaay gii di laas moom mu xëy nag di ñu xamal naa nag lu jëm ci nag jàngoroy coronavirus ji law ci réew mi loole nag daan nay tax yi nga xam ne ñoo doon jugee wakaam di ñëw liberté 6 jamono ji dañu leen koo daal di tere ngeen ni kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naa nag ñoom daam amara mi nga xamante nag maanaam ay fils à papa yi nekkoon ci seen ruq ba nag njombe daal di fay am ni ki démb maanaam nag demoon nañ retour de parquet tey ji nag la ñuy daal di janoo ak procureur ki nga xam ne mooy Iba Thiam moom nag daal nañu koy denc yéen a kaay ñu fekk fa Sadio Mané moom nag li mu xamle ci Premier League nee nag titre bi daal bu soñoon daf koy gagné ci biir terrain bi loolu mooy li nga xam ne mooy li ko neex stade yéen a ñu fekk fa Diao Baldé Keita journal bi nag jaar ci ay jaar-jaaram bi mu dikkee ci Sénégal lu toll ci nag ci fanweer ci ay sélection boo xamante ni bu fenk la waaye nag ndànk-ndànk lay génn